ñu leen nuyu di leen ziar yéen ñi nga xam ne yéenay ci Fromage Fort ñu war a ñëween ci benn vidéo wax ci Hamidou Diallo bi nga xam ne moo nekk fële ca Metz ak ki nga xam ne mooy Lamine Camara te mu nekk Metz yi daloon jàkkaarloog benn équipe bu Luxembourg match ci amico maanaam di préparé li nga xam ne mooy sama bi jëm suñu gaynde bii di Hamidou Diallo dafa titulaire Lamine Camara ci baa bi la la déparé bi dañ ñëw ci loolu gën kaa faram-fàccee wax seen daw doole autor moo tax dugal vidéo yi mais kon dañuy dugal vidéo yi mais gars ngeen abonné ñi ci vraiment pour ngeen ni partager en même temps ngeen ni liké ngeen gën ñu mëna dool bu baax ngeen ñu sànni ay kër Amadou Diallo dem max bu baaxal def na dafa départ ci max yi amico bi manam ba mess dañu xol ba Amadou Diallo ndax saison bi ñu jëm da lay mëna apporter liñ bëgg ñom yaakar nak limu mu mën a max démb moom Amadou Diallo gëm nañ ne saison bi ñu jëm man naam day bok ci 11 yi wa titulaire ci coupe Metz bi Lamine kamar nak xam nañ ko ba Metz mom wóol nañ ko gëm nañ ko pare mo la départ luñu ko Euh, xam nañ ne saison bi ñu jëm titulaire indiscutable lay nekk ci club bi nga xam ne mooy match euh, ca première division ba ne mooy division France ba ñuy ñaanal suñu ñaari gaynde yi Amidou Diallo ak Lamine Camara ñu def li nga xam ne mooy saison bu baax ci saison bi ñu jëm te am nañ ci yaakaar ndax xale yi gëm nañ seen bopp te gëm nañ liggéey bi te ñu am audace lañ te ñu am sañ-sañ lañ te football sañ-sañ moo koy def ak bëgg-bëgg te gis nañ ko ci suñu ñaari xale yi nga xam ne ay international Sénégal lañ yu mën lañuy def te ñëpp gis loolu yi ñuy suivre sport ngeen abonné ngeen commentaire ngeen partagé ngeen xaar ñu ci yeneen a ak yeneen a ak yeneen jàngat du ñu bàyyi dara ci équipe Sénégal merci beaucoup am ngeen jaajëf bu baax a baax baax baax merci